damaa yëg seen mat nee bu ma dugalee alaan alaan ngaamu na taxaw waaw cuur waaw nag mu ngi baax. oui sama nga natt góol bi. stade mobile bi. wax leen seen kaw bàyyi nañu. waaw du ngeen mën Vai, vai, vai. gel gel. Gel gel gel gel gel. Gel dur, gel dur. Ya bana ne kadar? Gel bir sağ. Vah vah vah. Thank you. Oh, barina, barina. dem nañu fii moom moom moo doon sox fóot na ko fóot na ko dugal nañ petit ko dugal na Ongué Junior moo dugal noonu ñangay dem ñangay dem de indi na génn Boy Jules ak Ongué Junior mbëkkante nañ sa bal ba six ak neuf oh de lan moo xew foofu ñoom ñaar ñoom ñaar mu war a si bal ma xool <laughs> ba waa Pikine eh eh eh li ko door waaw Mbalka. Mbalka. Cornel lay laal. yóbbul kay da nga mën a dab. ma naan no non dinaa dee Eh, waa Pikine di leen Touba ko ta waxoon mel ni mi am de Pikine tay ma ray léegi aca bu somon waaw ñay bu 100 oh dorna na pikin Pikine contré na tous lay tous lay aca caterpillar bu teen tubaab jël na tuus bi ma xool waaw laal na ko ñay baraan bu ngapparoo mu jox ko o oh, zul oh, génne nañ ko ñu xool alizé bu ndaayaan waaw jox na ko onge bu ndaayaan onge laal na ko o oh, ma waaw waaw Abdou Faye tigru saman o

njool maa ngi noonu mu teg ci dënn no arbitre remplacement remplacement Sokh ah, a ngi génn waaw dafa am combat wóorul te faux pas yeeg yooyu avance te la rek aja waaw ñu nga noonu joye leen te ngeen bàyyi wax ci waa Pikine Sakor dalal wax dalal wax mbay yaay Batista am na fi ayca Batista ayca Opposite court is the forward. Jonn Balba ma ngay dem ma ngay dem pas oh, na ko ma ngay dem ma ngay dem oh alaan dar na bob bi góol bi jàpp na Nih, ñay ubbil ñay ni ma ngi ci jàmm bu 오. Madiagne Madiagne dafa la mais mais ñi muy dugal yéen doo leen ko maye musal doo soo ma ni maye musal na ko benn benn alors bu dul li baax na bu dul. waaw on a un problème ça va. Deme loo wax mu tontu la. looloo doon yokk match bi doxul ci ñoom. Sele moom gese bal ba di daanu moom tamit ah lii. am nga fi am du fay am nga am du fay Wow, L'homme Matsu! Ah waaw suus! waaw waaw. Onge Junior! man fii laa mën arrangé. waaw ay gaañu de danga danga rek. dali dali dali waaw. koy met. nanga nanga rek. c'est bon Touba c'est bon Touba c'est bon Touba. Touba jël jël. Waaleykum salaam. allez fii moo gën a métti fii mooy fii synthétique yi nekk ndànk rek ndànk rek. réseau Mali benn bal bi waaye na rek. moo gën a soof bal bi boo ci tawee daw lu bari li nga dem fa paas. voilà demal kooku. ñii dama na football ñii ñii ay mbër ñii bëri ñii ay mbër seen défenseur sax dama na football c'est bien normal mais man ana ana booy la kii football bi léegi. booy mu ngi si rétaral ba rétaral la la gën a mën. waaw. waaye. na ko raw doxte na bal booy zil. zil peeg deuxième tir pour Boutigot Cotte Petit Cotte raté attention attention door na ko njool may gardien attention plan ba dugal raté bal ba Pikine raté na bal Pikine daal la ñàkk na match ba

door noonu gardien nu fay def attention match ba jeex na lay la léegi waaw Alizé njaay njaay a dix l'homme du marché ngi noonu de mais l'homme du marché waaw l'homme du marché tey tey géré nga marché bi de borom bi ah waaw petit code <laughs> Vaya <laughs> de